mu wax ma yenn pratique yi nga xam ne nañ koy faral di dugal ci ay armeel ban ban inconvénient lay jural nit ki hmm? mais kooku dafa mel ni dafa indisponible pour la moment donc dañuy dem ci kaawu Mandiaye Seck Ousmane Seck mi ko jur papaam wax dëgg yàlla moom def na sorti wax na mais lim wax moom lu leer la nee na Wally Seck dafa xeex ba am lii mu am nit ku nekk itam li la war mooy yow sa bopp nga xeex ba am li ngay am maanaam nit da ngay gëm sa bopp bul sukkandiku rek ci li sa papa def nga ni sam papa moo fi def lii yow ana loo def donc nit warul wékku ci nit li la war mooy nga góor góorgóorlu liggéey beneen bi mu wax aussi mooy yëf yi yëfu famille la am na yoo xam ne duñ ko fësal ci kaw. Mhm. waaye bi ci topp itam wax na ko mooy ay xale soo leen yaree yenn saa yi mën nañ dugg ci dara te doo ko yëg mën nañuy wax dara doo xam ne sax wax nañ ko xanaa bu coow baree ci nga yëgee ni wax nañu ko mais Mandiaye juum na moom daal loolu la wax doom bi ne na ko juum nga Wally Seck jàmbaar la ci lim nekk te Wally ak ay xarit lañu yëfu famille la daal noonu la ko noonu la ko waxee nooy jàngate wax yi affaire famille la affaire famille vraiment man moom bëggatuma sax wax ci cadre boobu parce que affaire famille la quoi comprendre nga affaire famille la mais am na yenn wax nga xamante ni kenn du ko wax ci plateau hmm. soo amee la métti dama nga seeti sa mag mm-hmm. nga waxtaan ak sa mag mm-hmm. surtout mag joo xamante ne ñëpp ko bëgg a magoo mm-hmm. rakk joo xamante ne ñëpp ko bëgg a rakkoo boo gisee la jaaxal de mën nga toog nga waxtaan ak moom réeroo amul ñàkk waxtaanaam du dëgg mais topp toog dafa juum rek waaw loolu la papa ji wax dafa juum dafa juum sinon warlu woon a dugg ci yooyu pratique di wax bay àgg ci waali gestuwul ay rakkam ak ñu mel noonu peut-être njuumte googu dana ko dana ko rectifier dans les jours à venir Jimbori mhm. yaa ngi gagné da wala yaa quelque chose non mais Bayre moom mhm. Bayre la et mbokki kese. bu wa waruñu kenn warul dugg ci mbokki kese mais mbokki kese tamit waruñoo nangu saa su ne ñuy wax ci ñoom parce que ay mbokk suñu àndee bëri na loo xam ne du senn mais bu dee lu bëri mi ngi senn rek même bu fekkee ne wax na wax nga ni ñi yéen yéen a ngi ànd mais àndu leen. parce que Ousmane seen papa la de. ma penda seen papa la de. Mhm. ñoom mënuñoo jaay affaire ba jaay ba incarné bu dee ay woy lañuy ñuy munuñu mënuñu ko incarné ci kaw Ousmane sekk munuñu ko escan incarné ci kaw Mapenda sekk parce que Mapenda ak Ousmane <coughs> dañoo mën a woy quoi amul boo leen di jaay mun nga leen a jaay beneen affaire mais woy moom kenn du leen ko jaay mhm. su su Mapenda li wa dafa ma pende ma pende ma penda waya ko bëgg am na ñoo xam ne ñoom ñoo bëgg woy mais ma penda way moo ñëw ne ma penda yow laa bëgg ma waaw nga non yow laa bëgg même ma penda bu génnee way way day dajjuwaat buntu ma penda dugg ma penda dafa mën way yaa ngi dégg mhm. ñoom seen askan boobu yàlla da leen defal ay askan ñoo daan jóg askan par askan du mhm. tudd mais nañ bàyyi xel. Sénégal bi muy Sénégal ba tey léeg-léeg da ngay gis askan boo xam ne dañuy xëy rek yàlla yéegal leen ci kaw la ñuy liggéey ñoom ñu nekk ci kaw nekk topp. yaa ngi dégg amoon na ci jëre jërëjërë yi amoon na keneen ak feneen ak feneen yëpp am na temps sa tëgg yëpp jërëjërë yee koy tëgg. am na temps géy-géy yi am na temps nangam nangam actuellement nii sekk-sekk yooyu. yàlla moo def ñoom ñoo fi nekk. am na wala amul du dëgg léegi nag Ousmane Seck. Euh, euh, Mapenda Seck yaa ngi dégg seen beneen papa bi. ku mag ki Assane Ndiaye. des na keneen Lamine Nan Ablaye Naar seen seen magu papa xaw ma ñoom ñooñu ñëpp dañoo war a toog parce que famille bu demee ba nga xam ni ñëpp ñëpp daw wuti famille ba ñépp di wax ci famille boobu ñëpp bëgg a bokk ci famille boobu famille boobu da nga ko war a defaraat ñoŋal ko pour ñuy ñëw. ko war a ñag waaw ñoom. dañ ko war a ñag parce que tey lii ñu am nii lii ñu am nii coon daw na ba sonn pour am ko Mapenda daw na ba sonn Ousmane sekk daw na ba sonn waxuma ak kii de mais comme musique ak nit ñi ni ñu leen bëggee nii coon dundam yépp yaa ngi dégg waa fan mooy wax fii waaw ah, yow mën nga live si live <laughs> yaa ngi dégg yaa ngi dégg xoola mm-hmm. dundam yépp gère dafa doon gérer ay ay orchestre di gere ay fansam yaa ngi dégg du noonu ma pend di def lool di gérer ay fansam di gérer ay kii Assane Ndiaye euh, euh, kii euh, Ousmane Seck mais ñee dàq leen a way yombul mais ñoom ñoom ma Ndiaye Bambaali Waali Seck ñoom la yàlla jox chance bu xam ne nit ñi daw songu leen mm-hmm. nii nit ñi songee ñoom Waali nit ñi songee Waali Seck song ko bàmbaali ak ak naka la tuddati manjaay songeewuñ ko woon ñële am na wala amul mhm. waali sekk itam faramaare ji ñoom ñoo ko bokk mais poosam moo ko moom mhm. am na wala amul man day euh, duma forcer nit ci poosam pour ne la danga ma koy jox ba pare gëwuma ni waali sekk dina bokk nit te du ko dimbale xamaluma ko dara nag pour man li ma gis li ma wan mhm. pour mu bokk ak nit te du ko dimbali loolu moom gëwuma ko mais manjaa it yaa ngi dégg xoola kull kuy dund ma wax la dara sa baay di dund yaa ngi dégg sa rakki baay di dund yaa ngi dégg nga ni yonent bi bu doon bu bu bu dellusi waatoon buy xeex ma ànd ak moom xeex yi yonent bi bu doon xeex bu dellusi waatoon tamit doo ànd ak moom d'accord gis nga nit bala ngaa xam ni wéeroo baax nga toog ci tablier bëgg a wéeru gis nga nit day am kilifa ba keroog muy dee même kilifa bu dee day am kilifa parce que dina am ku naan yëkkati leen dugal leen xëpp leen ñuy xëpp ñoom nañ ànd bañ a yàqal seen bopp lii nga xam ni ñëpp bëgg nañ ko ñëpp ko bëgg bës bi ñu am seeni moroomu musique seen bëgg nañ ko de lu dëgg am nañ ko ba pare ñoom ñu dellu si am mag boo xam ni ñëpp a bëgg am mag bu mel noonu muy waale muy Waly Seck du dëgg Waly Seck nag man damaa gis bi moom dafa doon coon sekk booba coon sekk a ngi dund lii doon ko si kenn li muy am musique beeg yooyu du ko séddoog Aliou Seck du ko séddoog ñooñ ñëpp ñooñ sax bu leen waali wayul woon amuñu bës kenn xamu leen mhm. yaa ngi dégg ci gémmiñu waali lañ xamee ñooñu du dëgg manjaay it rayante na ba bokk sénégalais yi xam ko bambaali reyante ba sénégalais yi bokk ko mais loolu du ndam waxal mais nañ dem fekk ci seen baay ñu encadré leen ñu def lu kenn musta def ci àddina mhm. parce que fu ndool ni ma pend sekk mi ma gis am na loo xam ne nii ci ci carrière am boo ko xam nga tey dafa am benn waykat bu way way bu am solo mhm. booy maroon dafa ne jaar naa ci ndaw li ma yoroon wàcc naa ko ndaw moom képp ku ko weesu soxlawaat ko mhm. kon defe naa boo delloo ci ma pend am na lu mu xam ci musique loo xam ni bu doon bu dellu si bu dellu woon do xale dootu ko def mu jaarale la foofu est-ce doo dem. wallaay doo dem. dem mais boo beree sa yoonu bopp fa ma pend a gis turu yaa ngi dégg bu la bàyyee est-ce que doo fa daanu. gis nga keebaa mi keebaa keebaa gis nga ko. nangul yi mu nangul magam ñii magam yii nañ ko xool. tax de am na Kéba dafa nangul xoola gis naa ko ak Ousmane Seck gis ko ak ak ak ak Mapenda Seck est xam nga ñan nga ko gisal noonu. waaw hmm. ñan nga ko gisal xam nga ko. ay magam. déedéet. Kéba baayam moo ñëw. Hmm. Mapenda papaam la sa mag sa baay la. d'accord keroog bi usmaan Seck di way xoola Kéba baayam moo ñëw magam ñëwul. yaa ngi dégg. Hmm. bi keroog Mapenda dellu siwaat way gis nga Mapenda di ko way xoolal ku say baay géré dama lay ragal de man te xoolal baay ree baay ree mooy baay ree fekk Ousmane Seck ak Mapenda Seck moomu soriwul Kéba Seck moomu xoola Aliou bindal li ma la wax dina toog ci musique gu Sénégal gii d'accord moom day toog ci musique gu Sénégal xoola lépp lu amul kilifteef du dem Aliou loo mën a gis ci àddina lu amul kilifteef xoola utal ko app maa la ko wax. Hmm. utal ko app. sëñ Bay Jaxate moo ne woon am ko mooy am solo waaye boo ko amul ñàkk nga solo mooy kilifa. waaw mais xoola xam nga lan la xam nga lan la hmm, euh, bàmbaali na topp manjaay manjaay muy toppante waaye nga am mag ju musique man de bu doon man la xoola dam xoola damay góorgóorlu na parce que manjaay am na baat nga xam waaw am na baat mun na way ba pare ku bokk ci gétt naan ci meew mi wala nga joggi ca day nag yi. moo ndax dinañ leen ci bàyyi. ndax nit ñi dinañ leen ci bàyyi. waxa rek dañ leen cee war a bàyyi nag. Eh, nit ñi nit ñi dugg ñu ci de parce que keroog bi Mandiaye di wax nit ñi waxloowuñ moo waxal jaxran ah, am na wala amul. du dëgg. Waly Seck nag yaa ngi dégg Waly Seck na def attention. Uh-huh. ñaata yoon laa ko wax. bari man waali soxlaw ma si moom fukki dërëm. yaa ngi dégg man damay wax ay dëgg rek de sama kër gële waali sekk taalu fa cinde comprend ngi ni la sama fay gi moo ma gënal lu ma mën a am fay laa sant. comprend ngi ni la waaw ma ne sama fay gee a gënal lu ma mën a am mais waali sekk na def attention parce que ñu bëri xam nga lu ñuy doyee waali pour seen njëriñ faju doomu de mais xoolal. donc gisuma ñu encadre xoolal Wally Seck laa wax su ma dendoon nag moom man mii Aliou. Mhm. keroog brésilien yi duñ dugg. wala soirée bi damay yóbbu Wally. comme li délégué wax. parce que Wally ku ko xam coow li mu jóge ni kur xoola billaahi wallaahi wa bi ma gisee brésilien yi damaa rus. yaakaar bi ma ko gisee nii. dama doon lox xam nga lu tax ma lox xam nga lu tax ma lox damaa lox barki salaatul faatihi dama doon lox xam na lu ma loxloo mhm. parce que dama gis ni man kat papaam mooy sama waykatan ah. parce que coon dafa am lu mu def rek ma nekk xale mu ñëw ñu koy tuddee équipe daan Ramadan mu ma gis mu protéger ma si loolu benn waaye moo doon dóore ñun ñu nekk fa booy mu ne ko baal booy jël ñu teg ñu ma màggaaleeg moom bëgg ko coon sekk laa bëgg mooy sama musicien mais doomam mi ngi fi ma koy protéger mais booy wax yenn yi gis yenn yi mais da ngay rus. Mhm. du dëgg. d'accord man soo gisee may wax wax ju bëri gisuma ko léeg-léeg laa koy gis gisuma ko fii laa am pour wax moom tamit na déglu fii may waxee. da ciy jot moom day seet. yaa ngi dégg. dañ ko koy wax lii di mbappi mbappi yëpp xoola Youssou ma wax la dara nag tey ma wax la si Youssou Ndour Youssou xam nga la lan mooy affaire am musique am ak grandeur ak personnalité am la ñoo ànd. yow nee nga mu ngi wax. musul noppi mais mais kaam wax la benn affaire mais Wally Seck dafa am ñu bëri ñu jekk ci di ko dimbali te di ko yàqal. Mhm. damay gis yu xoola Wally Seck mënta nekk ci kaw seen nekk ci suuf mënta nekk ci kaw seen nekk ci bunt mais Wally Seck ñii nii du xoola Sénégal gi yëpp Sénégal yëpp a ko bëgg yaa ngi dégg na way dëtt mbaamu way deret comprend nga li mu la wax. oui oui ñenn ñiy ñëw poof mais yow yow Wally Seck man su ma taxawoon ci bunt bi ah. Mm. salaatu yi balaa brésilien yi di dugg mooy dee naan dañ may wàcce dugg parce que coo moom laay moom laay wax man dama sama xel ci Wally Seck laay wax parce que xam nga lu tax. Mm-hmm. turam xoola bi ngay bi ñaata nit ñoo fa nekk. mais soirée Wally Seck lañ leen tuddee. turu Wally Seck sama papa moo ne ma na nga moytu sa tur di ëmb ay tur ma ne ko ndax lan mu ne ma saa boo déggee ñu naan ñoom Aliou. na yow bu yow yaay sarax bi. Mhm. ñoom dañuy ñëw Wally yëkkati xaalis jox leen ñenn ñi lambar lambari ñii yéeg ñii def lu nekk tasaaroo après moom mu nekk ci coow fan yële nee naa la nit bu demee ba ñuy laal yaramam mi ngi ci danger. Mhm. ñaata yoon laa ko wax. mais Waly sekk moom fan la noppam yi nekk. ah <laughs> <laughs> man affaire yi daf maa jaaxal dëgg yàlla parce que man <laughs> munul nekk ci kaw nekk ci suuf mais na jël ay nit ay conseillers conseillers ñu dem ay boroom xel gis nga bu gis nga borom xam-xam borom xel moo koy jege mais borom xa borom xam-xam xoola bu mu nangu dox di ko jege. d'accord. borom xel da ngay dem jëli ay borom xel booy def dara nga ñëw si borom xel yi mais ndey gay lii lan la yow ku soof nga yaa ngi ak say ñuul xoola jëlal ay borom xel ñu wër la yaa ngi dégg ñooñu non vraiment man damaa waaru quoi. dëgg yàlla fan la dénk ay fan la yóbbu ay noppam xam naa. noppi non non man de damaa wax ba dee man. <laughs> noppi da daa daa xaw a voyagé waaye noppi Wally Seck man war waru koo sori moom ay noppam moom sori wu ndax waykat moom noppam da koy da koy. jege non non non non <laughs> xam nga man lu ma la rus rus lu ma kii. Mm. xam nga euh, kii euh, promoteur bi moo engagé Wally du noonu. kooku daal lu waay di wax kooku la ko war a wax. waaw waa xaaral déedéet Wally du ko wax dara. non waale yoonam nekku ci waaw xaara ma wax la xaara du ko wax dara. waaw xam nga lu tax du ko wax dara. waaw mais ñii topp waali sekk ñoom lan la ñuy jëriñ. waaw ñooñu ñooñu la waale war a waxal mais promotrice bi la ñu wax maanaam nit ñi di wax nañ wax ak promotrice.